li fi xew euh, benn cantine mercerie moo euh, loon takk sànq fii à la rue 15 euh, angle Blaise Diagne fii ci Médina bi ñu alerte donc ñu informé sapeur pompier yi ak le commissaire Médina informé ma fii dama rapidement sapeur ñu alerté le ñu ñëw actuellement cantine bi fee nañ ko et puis vraiment sant yàlla quoi ñàkk de dégâts matériels. est-ce que lii euh, jarul ñu gën a xoolaat ci wàllu vigilance bi. vigilance bi di court circuit la bu am ci biir cantine. loolu moom euh, li nga wax dëgg la mais toujours est-il que vigilance moom du du doy ci wàllu sécurité mais yàlla def na si jàmm daal pour le moment. donc euh, fee nañ safara si yëpp continuer nañ actuellement di surveiller actuellement on a benn camion bu taxaw di surveiller di ci des c'est la période chaque année moment yi day bari ay incendie donc population war gën a vigilant ci biir vraiment ni ñuy ni ñuy gérer. nu ñuy surveiller seen branchement parce que heure bi fekkoon na ñëpp wàcc déjà ma yegg sama kër ñu woo ma moo tax euh, ñu ñu man je m'appelle Djibi Diallo je suis le sous-préfet de Dakar Plateau. donc sama euh, matin euh, vers de 22h30 on m'a informé d'un incendie ici à la rue 15 angle Blaise Diagne. Euh, incendie qui s'est effectivement déclaré dans une mercerie qui appartient quand même à des Marocains. Bon, quand on a été alerté, automatiquement les sapeurs euh, ont été informés. Ils ont appliqué, le feu a été très vite maîtrisé. Euh, euh, il n'y a eu que des dégâts matériels, tant bien que mal, parce qu'il n'y a pas eu de, de perte en vie humaine. Alors donc cela remet encore en cause euh, la vigilance qu'on doit avoir par rapport effectivement à la surveillance des, des cantines quand même, euh, où vraiment souvent les gens laissent le courant quand même fonctionner après la descente. Donc, l'appel, euh, en tout cas, euh, lance un appel pour la vigilance. La vigilance de, de, et la surveillance vraiment de tout ce qui est électrique et éviter les blanchiments anarchiques ou clandestins et quand même euh, avoir euh, le, le, le, minimum de sécurité pour faire face à toute éventualité en cas de, de danger avant que ça n'arrive.